jëriñ bi ñu denk forces armées maître Omar Youm jiite na cérémonie sorti fukk ak ñeenteel promotion élèves gradés ak juróom-ñeent fukkeel promotion élèves gendarme foofee ca caserne Samba Wali ba féete ca Fatick. aujourd'hui est euh, tey euh, bés bu am ah, dayo la ndaxte dañuy màggal euh, seen génnub lekkool bu gendarmerie. loolu di firnde nii yéen a ngi dugg ci monde professionnel doon ab gendarme mbégte la doon itam luy féexal xol ngir seeni waa kër ak seeni jegeñaale doon itam ab responsabilité aussi un moment de responsabilité. jege nañu ñaari téeméer élèves gradés ñoom ñoo jot seen lijaasa ci fukk ak ñeenteel promotion bi élèves gendarme yi nga xam ne ñoom itam jot nañ seen lijaasa te nekk ci juróom-ñeent fukkeel promotion bi toll nañ ci junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk. vous avez acquis de nouvelles compétences. tàggat nañ leen ca na mu waree ndaxte léegi am ngeen xam-xam bu bari ak technique gudul jeex ngir amal seen liggéey ca na mu waree. lépp a ngi seen loxo ngir ngeen aar ak daal di sàmm yoon ak nekkinu askan wi bàyyi leen xel ci bile yéen ndax balaa dara ñeneen yi ngeen fi nekkal. Vous êtes avant service des autres. bu ñu sukkandiku ci maître Omar Youm bi lu recrutement yu bees ci biir gendarmerie bi dafa bokk rek ci luy dooleel karange bi foofee ca Fatick nga xam ne nekk na ab région Carrefour ci loolu dinañ taxawal itam yeneen i infrastructure yu bees waaye itam yokk équipement bi ngir gën a dooleel gendarmerie bi ca boobu les